ndax ndax damay laaj ndax Habib moom mooy gàcce famille Youssou Ndour ndax ndax damay laaj ndax Habib moom mooy gàcce famille Youssou Ndour ndax di def sympathie gàlle mais moom dafa mësu contre Youssou ngeen def ah, bu ma la tey dama ñëw bëgg def benn vidéo ci Habib euh, encore une fois ndax ñëpp xam nañ ne Habib Ndour mooy lëmbee réew mi fi mu nekk nii jàppal Aby moo tax sax may laaj ndax Aby Ndour est la brebis galeuse de la famille Ndouré de la famille ndax ndax damay laaj ndax Aby moom mooy gàcce famille Youssou Ndour ndax wax tëgg dañoo gis fan yi am Aby mel ne ngeen baal ma ku rakkal bi mel ne ku jëfu ngeen baal ma di xeex xeex boo xam ne moom mu mënu ci am ndam gars yi ngeen baal ma tey la 4 um, juillet fii New York fête nationale la fii fii um, New York moo tax ngeen dégg pétard yi mais Aby Ndour Aby dafa mel ni defu um, di dal ci Atépa di dal ci Babacar Ngom ngir daan suuf problème suuf boo xam ne moom dafa ko jël mu ne moom moo ko mais ma gis ne wax ji dafa bëri ba léegi sax étudiants yi dañ cee dugal seen loxo. ndax fi mu nekk nii maa ngi nii sax di seetaan xool leen xool leen gis nga étudiants yi ñoo génn j'espère que génn gis ngeen étudiants yaa ngi nii dem ci place ba di xeexat ak moom Aby génn benn vidéo di kaas moom mooy filmer nii xam nga kon étudiants yi bu demee bu dugal ci seen loxo loolu la wax ne Aby mënul mënul gagner combat bi waaw étudiants yi bu bu duggal ci sa nom ne place bi Aby momuko moomu ko te jaaykatu ñi nga xam dañ fa nek di yett xéer du ko jaay Aby waru len génne yaa ngi may dégg mais li dafa ñaaw mi ngi yàq deru Youssou Ndour mi ngi yàq euh, euh, patrimoine Youssou Ndour di takkal famille yu Ndour ngir lan ngir suuf policier yaa ngi noonu ñëw mais li xex la bo xam abi mëno ko gañe ndax place bi bañ la ko joxee joxewuñ la ci ay anam yo xam dafa leer waaw léegi ñu bëri ñu génn di yak sa der da nga wara gëm yalla te xam yow sonn lo ndax am nga kër ma ngi sétan sank mam sen mu nek France ben activiste Bok ci ki Assane djoufi le bok element Assane djoufi mu nan abindour mom maire Dakar Khalifa euh, Sall PS nous dañ ko fay non rek deful dar deful dar chargé de mission mairie de Dakar du ko fay khalis mom moy la ni di yak der Abindour moy filmé. filmer koy nga des pauvres gens ay nit yo xamné ne ñu dara Atepa mo leen jox khalis pour ñu ñew l'a gis nga place waaw place Abondeur dégg nga mu ngi nii di wax xale yi xoolal xoolal nu muy xase xale yi gis nga mi ngi mi ngi naan xale yi xamu leen li xaw yéen ngi dugal seen parents ci li ñu xamul dégg nga mi ngi menacé xale yi. étudiants yi tontuñ ko sax mais. Habib moom dafa mel na ku ku ñàkk sagoom gëmul yàlla dégg nga dégg nga vraiment Habib dafa mel ni ku jëfru ndax Descos dañu war a ñëw daal di toj place bi bu wëndu kenn mës ko dégg ci lii Ndiaga kenn mës ko dégg Youssou Ndour kenn ci waxu ñàkk fayda xam nga euh, Ngoné Ndour di def sympathique mais moom dafa mës a contre Youssou Ndour loolu famille boo gis nag daf ci am ñoo xam ne dañuy nekk li ñu wax la bi galeuse koo xam ne moom mooy moom mooy rusloo famille famille famille dégg nga nee na c'est des pauvres étudiants nee na ay pauvres étudiants mi ngi xas étudiants yi mais vraiment lii dafa ñaaw ñaaw na trop trop trop mi ngi xas Pierre Goudiaby nee na Pierre Goudiaby moo jox ku nekk moo leen jox dix mille francs te yàlla xam na ne Pierre Goudiaby boo demee yëgul tiinul vraiment Aby Ndour daal Aby dafa war a gëm yàlla dafa war a gëm yàlla te xam ne moom am na këram am na salaire xam nga Sénégal ñu ko gën a sonn moo ko moom suuf si nag boor géej gi nag duñ ko duñu ñëw rek jox ko nit ci noonu tumaani foro xam nga moom nag mu ngi xeex xeex boo xam ne wax dëgg mënu ko mënu ci am ndam voilà lii benn vidéo la rek bu bu ma def parce que day damay ñëw rek gis di ma ne xaaral ma def ci benn réaction mais nag wax dëgg lii dafa ruslu te xam naa ne du du ñàkk ñoom ñoom Youssou Ndour xëy na dañoo wax ba sol moo tax waaw ndax lii ñoom wax dëgg lii lii dafa ñaaw te bu continuer bu continuer dina dina gën a salteel dina tilimal euh, deru euh, famille voilà